nekk ni fan la. damaa dem euh, ci li nga xamante ni mooy délice traiteur ci Rama tey direct laa def lépp. Hmm. mu ñëw attableel ma gis nga plat yu naaj ma defal nii macha allah. Rama soo mënee ñëw rek tuuti rek deux secondes rek. nga présenté ñëw Rama amul micro. Rama ñëwal sama wet nii rek. taxawal nee ci ginnaaw kon taxawal nee ci ginnaaw. nee ci ginnaaw fële fële mën nga taxaw ne nga présenté am am am mu gaaw ayca mu gaaw. ay mu gaaw takkal teel sa micro bu baax yëkkatil micro bi waaw ayca salaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs comme niñ ko waxee rek tout à l'heure dañu préparé Saint-Valentin donc de manière très rapide dañ leen di présenter quelques plats yi nga ak couvre-feu bi nii accompagnement bi ak salade composée bi mhm. ak euh, so champignon bi en même temps fële am nañ fa mi ngi noonu Samira. bi mooy poulet au am nañ fa poulet au four ak euh, ak brochette yi. ak brochette. Mhm. brochette bi donc du coup. avec ça mën nañ ci euh, am li ñu bëgg ci jour Saint-Valentin bi comme couvre-feu bi c' est pas aussi simple que ça pour ni pour nit yi mën a génn dem resto. donc li couple yi mën nañ ci. sukkandiku mën nañ ci basé wu donc li nga recommandé couple mooy que. waaw lii daal laa xam ne moom yaakaar naa. boo leen mënee jox seen numéro téléphone aussi. le numéro téléphone c' est le 77. micro bi c' est le 77. 694 68 voilà léegi euh, chers amis téléspectateurs gis ngeen tey élément bi dama ko indi en direct. wan leen plat yi en direct pour képp ko bëgg rek sa couple nga décorer def ba mu nice rek da ngay woo ki nga xamante ni mooy jëli traiteur mu defal la plat yu nice yi. xam nga maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ay am na solo donc ñun kay euh, boo gis nga euh, kii yow bu doon maa yow. ana dañuy wutaale say plat yu ndaw rek di kii nànk li ñu indil fii. Euh, bu fi sama yaay Adja Vessel nekkoon tarkal. léegi Aba sama yaay mën a servir. Aba dafa am fu ma demoon entre temps. fu foo xamante ne comme Saint-Valentin la ñu wax. Mhm. suñu maawo mënee présenter élément bi taf taf. ñu xool ko ñu xool ko. ayca ayca maawo. plaisir booy déguster plat wu la bonne cuisine. tey maa ngi leen indil euh, benn buffet boo xamante ne c'est pour euh, euh, booy recevoir say gan wala nga am ay anniversaire ak lu mu wala nga bëgg a bëggeel sa chéri donc ñu indil leen benn buffet minime boo xamante ne am ngeen fële salade quinoa am ngeen fële ay neem am ngeen une plateau de crudités variées am ngeen salade chinoise am ngeen fi salade sucré salé am ngeen fi soupe de crevette maïs euh, fii am nañ pour euh, euh, poulet KFC façon la bonne cuisine donc fii am ngeen ay brochette mixte fii nag mu am nekk langouste exotique fii ñoo ngi cité Horizon donc ñoo ngi cité Horizon mais la bonne cuisine mu ngi sur toutes les tout si réseaux sociaux yëpp la nekk Donc, euh, nous sommes sur Facebook, sous le nom de Traiteur La Bonne Cuisine. Sur Instagram, ñoo ngi euh, traiteur-la-bonne-cuisine.sn. Nous avons fait euh, toutes sortes d'événements. Événements, nous avons Il nga am sa idée. Parce que euh, souvent, nous avons fait des wax ñu li nga bëgg ñu transformer ñu ñu ñu réaliser say reer mu nekk euh, ñu commencé ko ci couple ñaari nit waaw nga bëgg a bëggal sa chéri ñu wax ñu ñoo man de lii laa xalaat ñu ñëw na la boo ci yokkee lii ak lii ñu defaral la ko mu lii waaw nga bëgg a recevoir say gan bëgg leen bégal même chose anniversaire même chose mariage ba 500 personnes séminaire waaw lu mu mënti doon foo ñu woo te tamit dañuy def région yi waaw partout partout au Sénégal foo ñu woo ñu wuyu ayca am na solo. gis nga décoration bu nice bi ma bi ñu Cheikh defal ah Cheikh mooy la bonne cuisine traiteur ma koy def un big up ak ki nga xamante ni mooy monsieur et madame Ndiaye au début noonu ñoom ñoo couplé ñoom ñaar donc euh, juste pour vous dire que bu ngeen bëggee décoration ak lekk bu neex bu sell da ngeen di contacter ki nga xamante ni mooy Cheikh ak madame Ndiaye ñi nga xamante ni mën leen joindre ci 77 572 63 62 mais Aba. gis nga lekk ak décoration ñoo ànd nekk. mais loolu la. benn mënul dem bàyyi moom. mais la parce que da xool Adja Vaisselle ñu attablé table. déggal ñoo indi ay fleurs macha allah. xool yi moom la chaque détail. xool yi nii waaye kii kan moo ko daajuloo sama sama fleur. tooy.